oui c'est-à-dire que bu ñu fu ñu toll nii pour man du du Ousmane Sonko Adji Sarr non c'est la justice booy condamné nit sur deux ans le dossier a été construit sur un fait le viol menace de mort etc mais si le juge après deux ans arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de viol là moi un problème de cohérence ouais, avec la justice un problème de cohérence maintenant deuxième niveau bi c'est que bon c'est il faut aussi aller jusqu'au fond que respecter la décision mm-hmm. Pastef et Ousmane Sonko doivent envisager l'avenir mm-hmm. c'est-à-dire que euh, tribunal moo jël dogal bi mais demain kenn xamul 2024 on a vu le cas de mm-hmm. Karim Wade tey jii dafa laaj révision de son procès donc Ousmane Sonko aussi doit être sur euh, sur le long terme bañu nekk émotion décision wodd na comment je vais réagir loolu aussi ça dépendra maintenant réaction Ousmane Sonko ak euh, ak Pastef hmm. bon beneen réaction bi c'est ban lien la nar a am moi je trouve que c'est c'est vraiment malheureux que tey ji pratiquement kenn liggéeyul donc nguur gi xamoon na lu nar a xew donc nguur gi jël na disposition et ça c'est pas bon pour le climat social nañ nañu bàyyi ci lu lu luy ñëw ni fii ak 2024 que état bi waratul nekk dans l'amateurisme parce que là on est dans l'amateur on ne gère pas le angoisses des gens on ne gère pas l'emploi des gens on ne gère pas ce qui venir mais da ngay jël cette décision tu cette décision bi di nga ko appliquer quel que soit le résultat loolu aussi defe naa état bi war na bàyyi xel ci askan bi ak koom-koom réew mi stabilité bi bon l'État ne doit pas être à l'origine de l'instabilité c'est mhm. ça que je veux dire mhm. bon ça aussi c'est une responsabilité de l'État na beneen responsabilité aussi bon c'est les euh, acteurs politiques yi bon pouvoir am na opposition am na est-ce que waruñu kam jéem a négocier euh, comment gérer cette situation après après le verdict la pouvoir ak opposition dañu war a xool naka la ñu mën a gérer situation bi fii ak deux mille vingt quatre parce que mu neex wala mu naqari dina am impact ci élection présidentielle bi.